ginnaaw ban sant yàlla julli ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokk yi jot jot nañu waxtaane lu wàll lu bari ci wàllu koor tey nag li ñu war a waxtaane mooy teggin yi nga xam ne bëgg nañu kuy woor mu sàmmoonteeg moom kemt lay kàttanam ndax teggin yee la yuy mottali koor gi nga xam ne moom lay def bokk na ci teggin yooyu yi nga xam ne bëgg nañu kuy woor muy sàmmoonteeg moom nay muy xëdd xaddu moom xeetu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp bokk nañ borom borom xam-xam yëpp bokk nañ daje ci ne lii sa xëdd day lu luñ sopp la li tax nag ñu sopp ko waaye bu fekkee ne ñàkk nga koo def itam dara duñ wax ne dara topp na la ci li tax ñu bëgg ñu sopp ko nag moo di yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne nañuy xëdd ndax xëdd kat barke ngi ci am beneen waxtu boo beneen wax boo xam ne mu dafa wax ne nañuy xëdd ndax xëdd barke ngi ci buñ ko bàyyi mukk ndax doonte da nga jël guux benn guuxu ndox rek te dana doy ndax kat malaayikati ak malaayika yi ak suñu borom waxtu wi nga xam ne wax xëddkat yi jóg nañ ngir di xëdd dañu leen di ñaanal te loolu ñaanu suñu borom ak ñaanu malaayika lu mat a sàkku la bokk na ci yi nga xam ne itam bëgg nañu koo xam ne mu ngi war muy sàmmonteeg moom mooy muy gaaw a dog gaaw a dog nag buñ la ko waxee tam itam mooy faw jant bi day so ba noppi nga soog a dog waaye jatu bi du so sag ñemee ko war wala sag xër tax nga toog ba mu ba waxtu wi di bañ bay bëgg tollu bañ toll ci bañ toll ci di julli wala ñu nodd bay taxawal ngay soog a dog loolu kenn bëgg ko bëgg nañu suñu su dog su jant bi soree soowee rek nañ dog waaye nag dog lañu tudd lañ wax waxuñ waxuñ dogu ndog dog rek mooy mooy dagg dagg koor gi rek waaye waxuñ nag ndogu ndax ndogu mën naa jël waxtu wu yàgg wu yàgg ba nga xam ne jul tëbës maanaam julli tibis gi mën naa am lu ci jàll moo tax dañuy bëgg rek bu bu bu jant bi soo nañ dog boo dogee ba julli ji ba ñëw nag bu la neexee nga soog a ndogu waaye dog moom lañ bëgg bu jant bi soo nga def ko dog nag li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxoo daa ko def ci buy dog buy dog mooy dafa daa jël tàndarma ju tooy mu tab tàndarma ju tooy jee lu tóol la ciy jël moom lay doge bu fekkee ne amul tàndarma ju tooy mu jël tàndarma ju wow bu fekkee ne am amul tàndarma ju wow mu góox ay góoxi ndox soog a dem julli ji kon moo kon ñu mel loolu ba tey duñ ci jàngal rek ne kon dog la def waaye duñ dog beneen bi nga xam ne bëgg nañu itam kuy woor di mu di bàyyi xel ndax waxtu wu tedd la weer wu tedd la te jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon nañu ne ngànnaayam mooy ñaan ñaan kon nag bëgg nañu ku nekk ci koor ngay bàyyi xel di ñaan waxtu wu nekk moo xam ba ngay dog la moo xam bi nga nekkee ci biir koor gi la ndax loolu dañoo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki nga xam ne da woo dafa woor de am na ñaan goo xam ne bu ko ñaanee suñu borom du ko delloo mukk mooy bi nga xamee ne toll na ci di dog su ñaanee bu suñ borom lu ñaan suñu borom du mu doon loo xam ne lu lu ñu war a ñaan la te doonut loo xam ne itam lu jomba ñaan la bu ko ñaanee suñ borom suñ borom dana ko defal am beneen yonent beneen beneen wax boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne am na ñetti nit ñoo xam ne day seen ñaan saa ñaanee suñ borom suñ borom dana leen wuyu bu fekkee ne lañ ñaan lu mën a am la lañ ñaan itam doon ñu war a ñaan lu ñoo naan ñooñu nag mooy ñan mooy waa ji woor nee na saa yu ñaanee suñ borom dana ko wuyu ci kaw nag loolu ñu waxoon léegi na nekk li muy ñaan na nekk lu mën a am li muy ñaan tam na nekk lu lu war a lu war a am ci moom maanaam lu dagana lu dagana ñaan ñeene ki nga xam ne day woor day saa li feeg mu ci koor gi dana saa su ñaanee suñu borom dana ko may keneen ki ci teguwaatam mooy ki nga xam ne mooy imaam wala njiit lek yoo xam ne njiit lu maandu jaar fa koo xam ne ñu ngi jaar fa mu war a jaar mu ñaanee suñu borom itam dana ko dana ko dana ko wuyu am na keneen itam mooy ki nga xam ne dañ koo tooñ kon loolu dañuy kiñ tooñ itam su ñaanee suñ borom dana ko dana ko dana ko dana ko may lam ñaan loola lim nuy lim nuy jàngal mooy ñu ba moytu tooñ bu baax a baax ndax comme xam nañ ne ki tooñ suñ su ñaanee suñ borom mu may ko te xamuñ lu mu nuy ñaanal kon nag ñàkk ñàkk tooñ mooy li nga xam ne mooy moo nañ mën a musal ci li nga xam ne la moom lañ war a ñaan bokk na ci li nga xam ne itam war nañ koo bàyyi xel mooy xam ne alxu weer weer wii nga xam ne moom lañ nekk de mooy weeru alxuraan ndax ci la ko suñ borom wàcce woon kon nag bokk na ci li nga xam ne war nañ ko ci war nañ ci góor góor suñ kem lay kattan mooy di jàng alxuraan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa day nettali nañu ne moom day bokkoon na ci ñi gën a tabe ci àdduna si waaye nag tabe googee mu ngi daa gën a feeñ ci weeru koor waxtu wi nga xam ne moom la ko jibril di ñëwal jibril nag daana ko ñëwal nee na ci weeru koor ci guddi gu nekk bu muy jàngan mu ànd ak moom ñuy jàngaat alxuraan ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam buñ doon mel buñ bëggoon a melal ak ak ak tabeem dañuy wax ne moo raw maanaam ngelaw loo xam ne xam na ne ngelaw bu ngelaw ngelaw loo xam ne dafa am dafa xaw a am kàttan tuuti xam nañ ne wee ngelaw loo xam ne xaw dafa am kàttan lu mu romb rek dana ko yóbbaale kon moom itam lu nekkoon ci loxoom rek da koy génne joxe ko kon loolu di ñu gën a soññ ci fukki fan yii nga xam ne moom lañu toll muy fukki fan yu mujj yi ñu tollaat sax ci fan yi ci mujj kon loolu di ci boo yàlla jox kattanu ak man di génn di ci génne di dimbale mbokki jullit yi di dimbale doomi aadama yi loolu lu am solo la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ko daa def bokk na ci li nga xam ne itam bëgg nañu ñu bàyyi ko xel ci fan yi nga xam ne moom lañ toog toll muy fukki fan yu mujj yi nga xam ne maanaam dees na ci nattale laylatul xadar kon moom itam bokk na ci li nga xam ne bëgg nañ ko ci nga ku ci nekk nga góor góorgóorlu ci gën a jaamu yàlla gën a farlu itam ci jàng alxuraan ak tudd yàlla ak lépp loo xam ne mooy jëf ju baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bu ma fukki fan yi mujj yi mësee dugg li muy def mooy waa këram yëpp dootu bàyyi kenn mu nelaw da ni ci day tegaat itam moom danaa takk ndiggam ngir bëgg a taxaw fan yooyee nga xam ne mooy fan yu mujj yi nga xam ne mooy fukki fan yu mujj ci weeru koor wi kon ñu bàyyi xel yooyu te xam ne yii yu mat a sàmm sàmm la ndax mooy gën a rafetal sa koor te koor kat suñu borom def na ci xéewal yoo xam ne yaakaar naa néew na ak jaamu yàlla goo xam ne def na ko ca ndax li nga xam ne moom lay wane na ne koor moom moo ko moom yëmut ca loolu waaye mu am loo xam ne itam da koo def ngir bu fekkee ne am nañu ay rëcc rëcc ci biir koor gi loola mën noo raxasal rëcc rëcc yooyu ak ak ak ak jafe yooyu ak yi nga xam ne moo ci nekk te mooy muurum koor yooyu yëpp nag yaakaar naa ci yeneen jaamu yàlla yi yaakaar naa dana ñu gis ko ci xaw naa jafe kon nag loolu ñu mel ni xéewal la goo xam ne suñ borom ko def ci weeru koor suñ boroom mi nga xam ne nag mooy borom kàttan te mooy borom ak man te mooy borom ak sañ te ñu nekk ci bis bu tedd bii nekk ci weeru tedd yi ñu ñaan suñ borom moomu mu def mu leenu ci kattanam ak manam ak yërmandeem ba li nga xam ne moo jaaxal doomu aadama yi te moom rek moo ci am pexe mu tàggale noonu moom te génne ko ci àdduna sépp képp koo xam ne yàlla dogal na mu dal la yàlla na ko suñ borom teggi kum dala guttam yàlla ba ko suñ borom teg ci yow na ko jeexal ci àdduna sépp loo suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla na ko defal ginnaaw loolu tam ñu tàllal suñu loxo di jaan suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ lépp loo xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Serigne tubaa lépp loo xam ne yéene na ko ci doomu adama yi yéene ko ci lislaam ji suñu borom may ko kattan ak man mu def ko nem ko bëggee te ñu ànd ko moom ci daje ci ngërëmu suñu borom képp koo xam ne itam lislaam mooy sab tool suñ borom dimbule la ba li nga xam ne moom nga yéene def ci lislaam nga def ko def bu kawe sa njot te am ci te daje ci bay payuk suñ borom te ànd ak ñi ànd kook ñi ngi ko war a àndal loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ñuy sant ñëpp nag di di ci taxawaay yi ak bàyyi gi xel barab bii nga xam ne xam nañ ne barabu suñ tubaal lañ koy tuddee ndax lenn lu ne dana am borom dana am kuñ koy askane waaye nag moomeel gi moom moomeelu suñ borom la jullit bu nekk rek am na sañ-sañu ak am na sañ-sañu ñëw fii ci barab bi jooxe fi li mu bëgg a jooxe waaye ci kaw nag ñu sàmmoonteeg li nga xam ne moom la ñu war a sàmmonteeg ci biir jàkka ci wormaal barab ci wormaal jàkka ci wormaal duggiin wa wormaal génniin wa wor wormaal nekkin wa loolu suñ borom yàlla nañ ci dimbale bañ koy def ñu xam dug ñu sàmmonteeg duggin wi di sàmmonteeg génnin wi di sàmmonteeg nekkin wi loolu suñu borom mën na ko jàpp noo yàlla nañ koy defal aqulu qawla hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wala maytan illa rahimta wala maridan illa safata wala xaajatan hiya lana salahun walaka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin